amnistie euh, justice sax dafa tere ñu wax ci. waaw c'est c'est boo ci waxee sax bu ñu waree dem ci commission vérité et réconciliation vérité moom pour mu génn foog ñu def ay enquêtes. waaw waaw nga quoi. waaw loolu am na mais def ci am def ci am yu des. dafa am yoo xam ne dafa dafa laaj ñu clarifier ko parce que comme noonu wax ci famille yooyu. mais famille yooyu je crois que le ministre Ismaïla Madior Fall leeral na ci wax na ci neen na ça a une méprise ni mu ko waxee mais loolu ñoom nee na ñoo ñooñu. war ñu euh, xel xalaat ñu bokk ci amnistie bi. bu mu juumlee lapsus la waxoon waaw bu mu juumlee def mel ni loolu la wax. bu mu juumlee la woon bokk na ci après mu voilà voilà euh, donc voilà loolu nag lool nag moo tax man la dafa laaj ñu def lu mel ni vérité euh, réconciliation et puis waxtaan suñu biir je pense que yooyu daal ay ay la yu ñu mënul a bàyyi noonu parce que boo ko fi bàyyi tam ëllëg ñeneen day ñëw sulliwaat ko te lu ñu sulliwaat déjà di ko sulliwaat di ko sulliwaat bu yàggee rek. nuru leneen alors autant donc régler définitivement cette affaire et puis mu daal di jeex tàkk quoi bien c'est difficile mais c'est comme ça politique na mu bindoo noonu c'est des cas extrêmement difficiles mais il faut il faut y aller avec patience ak dal ak tey et puis nga xam ni loolu mooy dëkk parce que lu dul dëgg du yàgg ah. mm-hmm. ak lu man lu dul dëgg du yàgg donc évitons la tricherie euh, de façon sincère sérieusement ñu joxante loxo mm-hmm. bu ko defee ëllëg ñu mën daje dans la rue waxtaan fóonante kafante dem suñu yoon c'est comme ça le président Abdoulaye da nga nekk bu fi jógee tey jaati ñëpp ay fax kii ko parce que jàmm ji réew mi Abdou Diouf ñu noonu bu ñëwee fii tey la même chose fexe ba kenn ëllëg président bu fi jógee ñu mën a daj si ngénte yi di lekk laax ñu man a daj si jàng yi ñu man a daj si gàmmu yi ñu ne ah seen président ngi nii Sénégal bëgg loolu la Sénégal xam mais bojjantee bojjanteeg dóoranteeg xastanteeg xar xabarante yooyu amul njëriñ vraiment amul njëriñ alors mënuñu bañ a wax ci li ñu fi doon dégg ay temps muy euh, retrouvailles de la grande famille libérale euh, déggoon nañu ay waxtaan yu tàmbali woon am diggante mag Sall mi fi ne woon ak PDS fan yële dégg nañu ñuy wax waxu kuréel gu gën a yaatu boo xam ne dafay dajale tous les libéraux du Sénégal pour préserver l'héritage du président wadd mais euh, dégg nañu itam ne PDS bañ leen ci waxee ba tey tontuwuñu loolu daf leen a intéressé wul wala da ngeen jàpp ne peut-être c'est une façon Fatou Fatou ñaan nga déggoon ñu ku nga déggoon ñu wax loolu. dégg naa ko ci Babacar Gueye dégg naa ko ci loolu Mbacke Ndiaye. non Babacar def na la. daf koy def PDS du bokk ci li ma dégg. non ah, kon dama dafa ne wax nañ ko waa PDS Karim ah, ah, kon j'ai kon wala vous n'avez pas été mën naa am sax kon a été officiellement saisi mais loolu man. surtout mm, méprise de ma part yëgu ma ko c' est possible. loolu noonu bon mais li ma la mën a wax foofu rek mooy. Euh, les retrouvailles de la famille libérale kooku appellation la boo xam ne dëppool sax ak ñun suñu vocable. Ah ñun ñun dañu wax reconstruction de la famille libérale. La famille libérale. c'est différent. reconstruction surtout bi ñuy jubalee président Macky Sall ñun reconstruction de la famille libérale et cette reconstruction a été actée par un document écrit et signé du président Abdoulaye c'est important mm. et qui a procède à une classification des familles politiques dinaa la jox document bi d'ailleurs il a procès à classifier les familles politiques les pes ici les centre gauche les, les la droite etc mm-hmm. il a schématisé tout cela pour dire qu'il nous a donné déjà euh, une voie mm-hmm. ñu fi jaaree on va procéder à la reconstruction non seulement de la famille libérale mais de toutes les autres familles politiques les marxistes la gauche la droite les socialistes et cetera et cetera noonu la ko bindee alors léegi xam nga retrouvailles de la famille libérale moom lu mën a nekk la parce que ay nit bu ñu nekkee bu ñu réeroo ñun ñu nekk nañu fexe waxtaan bu dégguwaat quand on est de bonne foi kenn mënu ko kenn mënu ko bañ mais dafa am nu ñu koy doxalee le président Abdoulaye Wade c'est le géniteur du libéralisme au Sénégal c'est le géniteur du libéralisme en Afrique nous avons créé en Afrique l'organisation de partis libéraux africains su l'impulsion du président Abdoulaye Wade alors vice-président de l'international libéral bu ñu waxee tey libéral fii ci Sénégal ak ci Afrique c'est grâce au PRC c'est grâce président Abdoulaye Wade alors ñu koy dox ñëpp nag am nañu sañ-sañ ne ay libéraux lañu mais dañ ko nekkoon su l'impulsion du président et sous et derrière le président Abdoulaye Wade ñooñu nag am na ñoo xam ne dañu bàbbeeku dem seen seen seen saawu bopp ñu beru dem seen sama bopp ñoo ne bu ñu yooxu nañ ne ah donc li ñu waroon def mooy nañ ñëw ne ay eh, nañu dellu ci suñu kër papa ñun ñi kat ci moom la ñu jógee ci moom la ñu jàngee lii ci moom la ñu nekkee lii comme léegi dañu bëgg dellu jubuwaat nañu dem na ñun ñëpp ñu dem ci moom ñu waxtaan ak moom ñu ne papa kat mm-hmm. ñu ne yaa nu jàngaloon lii yaa tax ñu nekk lii léegi dañu bëgg ñu seet nak la ñu nekkaatee naka la ñu àndaatee je pense que c'est la voie la plus sage et la plus directe mais bu fekkee kenn ko def ngay beru fële di yëkkati sa loxo wala naan noonu nañu daje fii nañu def lii nañu def laa nangam nang wala ñu naan ñoo ñooy jël initiative naka lañu jël initiative mais kër boo ci bokkee mu am buntu kër nga bëgg dugg ci kër gi nga bàyyi buntu kër gi ñu ubbi la ko nga nga ne da ngay jaar ci claustra wala ci palanteer mais am na loolu nam. kan mooy buntu bi Karim. ah non buntu bi buntu bi Ablaye Wade la Ablaye Wade mooy buntu bi Ablaye il est là il est vivant te ñu ngi koy ñaan mu gën a gudd encore yàlla may ko yor yaram bu baax. il la là il est toujours vivant il est là. donc te te te buntam tëjuwul mais kenn mënul jot ci moom. ah kay bañ a jot benn tëjuwul buntam tëjuwul non gars yi wax rek waat dañ koy gis kay alors donc c' pour dire simplement que man de euh, je ne rejette pas cette idée mais encore une fois nañu xoolaat seen position ak seen taxawaay ak ni nga xam ne noonu la ko bëgg a doxalee man daal yaakaar naa ne daal euh, ñoom ñëpp daal bu leen bu leen ñoree dëgg dëgg dëgg dëgg. dara terewu leen ñoom ñu fexe ñu toog a président Abdoulaye Wade ñu leen daal papa ñun say doom lañu yaanu jàngal. ba siin mimara yaanu jàngal luy libéralisme dañ bëgg nag léegi suñu xalaat yépp nag mooy fexe kër gi nekkaat benn waaye loolu yomb na c'est pas difficile. est-ce que problème bi du Karim parce que ñu bari ñi fa jóge Euh, tey génn dem ñu bëri hein je je dis pas tout le monde ñu bëri dañuy ne Karim Wade moo tax ñu jóge fa Karim Wade mooy problème mu PDS Karim Wade xëy na moo bëgg a ñëw fekk ñu xeex xeex bi togg togg bi moo bëgg jël lépp aaki moo ko yooyu accusation quand même dégg nañ ko est-ce que ñooñu tey ñëwaat àndaat ak Karim Wade te xam ne tey mooy def mooy dindi ci PDS dina yomb. non xam nga loolu moom man gëm gëmuma ko honnêtement Fatou Thiam je te parle sérieusement man loolu gëmuma ko. gëmuma la parce que gëmuma ni Karim Wade mooy lindi ay problème na gëmmu ko. parce que ñooñu parce parce que loolu la ñu joxe waaw mais xam nga xam nga ça c'est pas c'est pas c'est pas sincère c'est pas sincère parce que man ñooñu di ko wax yépp amul kenn ku mu jiitu PDS je l'ai dit sa micro amul kenn si ñoom ku mu jiitu PDS amul kenn si ñoom ko xam PDS lu ma xamul yàlla may na leen na xëy ñu am ay maqaama ñu am ay ndomba tànk yu leen yu leen defal te xëy na aw ma boobu kooku mbirum suñu boroom la mais li mu wax ni lu leer naññ la alors je pense que daal. ce c'est faire une mauvaise kuréel kuréel. même war a saa mi mer barki dem boo Ndiaye Karim Wade la accusé. non non non xam nga Dodo Wade mi nga xam ne tam yàgg na PDS mu euh, yëkkati fii jeexi jaaxa wax ne pendant deux ans ñoom demoon nañ sax bay laaj est-ce que document yi ñuy jot signature Ablaye Wade la est-ce que Karim Wade imité wul signature yooyu yëpp dégg nañ ko te ci seen biir. waaw mais xam nga xam nga yooyu yëpp yooyu yëpp ay waxu nag sa kandang la. Woré Sarr ak Doudou Wade c'est les plus grands défenseurs de Abdoulaye Wade c'est les plus grands défenseurs de Karim Wade ñoom ñëpp li ñuy défendre Abdoulaye Wade lu ko raw la ñu défendre Karim Wade lu ko raw la ñu jàppee pat bi lu koy raw la ñu bëggee pat mais lan moo xew si maintenant dafa am ay demale fekk la rek dafa am ay demale fekk la demale fekk la nag moom foo dem mu nga fa ngi ci diggante jëkk rek jabar mu ngi diggante ndey ak doom mu ngi diggante doom ak waajuram et cetera et cetera mais yooyu amul solo surtout qu'on ne en politique loolu rek la mais aujourd'hui c'est l'homme fort du parti démocratique sénégalais wax dëgg yàlla dañu am yaakaar ci moom bu baax a baax am yaakaar ci ni taxawaay wooy juróom président Abdoulaye Wade wan fees na dell mat na ko mën na sis bi te war na man am na xam-xam bi am na dayoo bi am na expérience bi am na carnet d'adresse te loolu la ñu soxla ci koo xamante ni war na mën a yor réew mi man j'aime j'adore tout le monde j'aime tout le monde mais présentement à l'heure actuelle où je te Il n'y a pas mieux placé que Karim Wade pour être le responsable numéro un du Parti démocratique sénégalais ñooñu di wax mais nit ak nit nit ak lamiñ euh, lamiñ ak bëñ ñoo dëkk bëñ ak lamiñ ñoo dëkk léeg-léeg ñu laalante mais ñoo bokk gémmiñ gi dañ jiwoot àndaat kon frustration yooyu mais frustration frustration du ñàkk dégg ko limal frustration du ñàkk mais frustration amee nañ ko jéem a gérer ñu waxtaane ko mu daldi jeex te ñu bañ a xamataal bi xam nga taal bi moo baaxul. amul ñi wax loolu dañuy jàpp ne. Karim ay nitam la bugg a teg. non non non non non non Karim amul nit ku muy teg a ku mu dul teg.